kon lépp ishaaraat yëpp kim maanaam xeetu xam baax la yu feeñ ci turu baayam ak turu yaayam ak turu ka ko jëkk nàmpal ñu di ko wax Suwayba ak turu ki ko nàmpalaat ginnaaw bi ñu di ko wax Xalimatu Saabiya ak turu ki ko doon yar muy Ummu Ayman al Habashiya baraka bim amee juróom benn at moom yonente bi sallallahu alayhi wa la yaayam ànd ak moom dem Yasriba di seeti ay nijaayam ndax Yasriba kooku fa la cosaano Yasriba kon muy Madina la ñu wax ni bi yonte bi tollee ci juróom benn atam ci la yaayam ànd ak moom dem Yasriba ngir bëgg mu seeti ay mbokkam moom itam mu mën a siyaare jiwaale xabru borom këram boobu noppalu mu muy Abdullahi ndax foofu lañ ko denc bu mu ànd ak yonente bi dem ànd ak ay ayman mu mu téyal ko ko mu daan téye yonente bi sama topp ci bañ nekkee Madina am nañ fa lu mat weer bañ fa jógee di dellu màkk ci yoon wi ci diggante Màkka ak Madina ci la wéradee moom soxna si moom yaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tudd bu ñuy wax al abwa abwa googu ci la ko wéradi gi eh, daal di metti mu amub diir daal di noppalu bi mu faatoo foofu lañ ko denc kon yaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko denc ci béréb bu ñuy wax al abwa ci diggante Màkka ak Madina ndax bi yonte bi amee juróom benn at mu di ko yóbbu ci ay mbokkam ak bëgg siyaare jiwaale barab boobee bi mu dëppee la ko tawat jooju daaneel mu daal di faatu ñu denc ko ci diggante bi muy birab boobu ñuy wax al abwa umu ayman daal di dellu ànd ak delloo ko màkk dañ ko delloo màkk nag kon euh, mu nekk ci loxol maamam abdul muttalib mu am ci moom yërmaane yoo xam ne mos a sukk maanaam doomam yem daan yar mënuñu woon yërmaane jooju seen diggante ak moom waaye moom am na nu mu fonkee yonante bi ba wax nañ sax ni buñ masaan dalal la Abdul Muttalib la taay googu yonante bu ñu ci digg ba lay toog buñ ko te doom yi kenn ci mës sa ñeme lu mel dañ daan toog ci wetu laytaal googu buñ ko bëggee yëkkati leen di wax ni leen bàyyee leen ko ndax sama doom ji mbir mu mag a ngi ci moom loolu Abdul Muttalib daan ko wax waaye nag eh, diir bu gàtt la am moom ci yar boobu dal di faatu moom tam bi mu faatu moom Abdul Muttalib kon yar bi ci bayam bu ndaw bi ñuy wax Abu Talib Abu Talib moo bàyyi yonente bi ñoo bokk ndey ak baay shaqiqaan léegi moo jur Sayyiduna Aliyun karamallahu wajhahu léegi ginnaaw bu yar bi toxoo ci Abdul Abu Talib moom yi la dem kon Abdul Muttalib yar na ko ñaari at waaye ñaari at rek la ama moom nag daal faatu yar bi toxu dem ci Abu Talib Abu Talib fonk ko lool di ko teg ci wetam xam ñooy bokk fu ñuy tëdd laltaay gi ñuy tëdd ci peggam da koy tëral mu doonoon ko amuk doylu doon sax misaal ci ak doylu moom yonent bi sam doylu lool sori loolu it jikko yu sew yi gone yi daan dund ci jamono yi gone yi liñ aada boo woon def ci ay jikko yu sew naka jëkk def ko sori kenn mësu ko ko xamel waaye njëriñ googu mu nekkoon nag am na jeexit jum bàyyi ci moom li ko maamam ak baayam bi fonk-fonk euh, yëg na ak njëriñ yëg na ko ci xelam xëy na loolu moo tax alxuraan di wax ak moom yàlla di wax ak moom ci alxuraan ni ko alam yajidka yatiiman fa aawa ndax fekku la nga doon ak njëriñ mu féetewal la boppam tukki bi mu tukki woon dem saam yonente bi bi mu demee ba toll ci fukki at ak ñaar bàyyam bu ndaw boobu di Abu Talib bëggoon na tukki dem saam saam nag yaakaar naa jamono bi ñu moo mooy Syrie mooy ci booru Syrie la digg bi yëpp saam lañ ko daan wooye euh, mu doon dem saam ci tukki commerce commerce bu mu doon defi waaye taqoogu yonente bi taqoog moom ak ñàkk ñàkk gum ko mën a ñàkk mën a muñ moo tax mu ànd mu moom yóbbaale saam buñ demee saam ba wàcc fa ñuy wàcc ñoom jëgg bépp jëgg bu commerçant yi jógee ci jógee màkk yëpp ba ñu wàccee fa wàcc am na benn laabe bu ñu daan wax bu xayra ab euh, nasaraan la woon nag waaye dafa ñëwoon ci gox yooyu ñëw xool ci jëgg bi bi mu leen di xool gisaale ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu gis ci mboolem mandarga yi nëbbuwa yi mu jàngoon ci téere yi mu jàng mandarga yi mu yëpp gis na ko ci yonente bi sallallahu alayhi mu daal di dénk bàyyam bu ndaw ko nag kii ma gis nii euh, na nga ko moytul yahud yi ndax gis naa ci moom màndarga yoo xam ne te yahud yi ñoo am ak kañaan ni bu ñu ko gisee ñii ma ko gisee mën nañoo def ay pexe ngir rey ko kon na nga leen moytu ak moom mu daal di gaaw dëpp ànd ak yonente bi delluwaat mag bokk na ci li sabab gaaw gaa dëpp sax muy loolu ko labbe boobu wax yonente bi fekk na xare bu ñuy wax xarbul fijaar ak xelful fudul xarbul fijaar bi bi amee ñaar fukki at la fekke xare boobu muy ab xare bu doxoon diggante xuraysin ak ña ko jàppale ak beneen giir gu ñuy wax xays ak ña ko jàppale mu doon xare bu metti bu xewoon ci eh, diggante Makka ak Taif béréb bu ñuy wax nax la fa la xare boobu xewoon mu doon xare tar ñu xotti ci lu bari ci ormay màkk ndax màkk dafa doon dëkk boobu dañu ko warmaal ma ju toll nii kenn du fa bëgguñu fa kenn du fa rey rey kenn kenn du fa faat bakkan duñ fa dagg ak garab ba ci aw teeñ sax dañu ko fay moytoo rey ngir warmaal guñu warmaal béréb boobu xotti guñu xotti nag ormay béréb boobu xeex fa ba tuur fa ay deret moo tax ñu tuddee guerre boobu xarbul fijaar ginnaaw bi ñu ngi dañoo mujj yéwénoo ci seen diggante ba xare bi jeex ginnaaw bu xare bu jeexee nag la mbooleem kilifay Xuraysin yi woote ci penc waxtaan def lu mel ni assemblée nationale ni léegi daal dañu bëgg màkk gi képp ku fi duggati moo xam ci waa dëkk bi nga bokk moo xam ab jaambur nga ak foo mën a bàyyi ko képp ku la fi tooñ na nan takkutoo ñun ñëpp topp la ba tooñaa ngi joojee ngi delloo ko borom ñu waxtaanee ko ñu daal léegi kuñ fi mën a tooñee ci biir màkk rek na ñëpp takkutoo jàppale kooke ñu tooñ moo xam ku dëkk ci dëkk bi la wala ku fi dëkkul la loolu yi moo tax moom la ñuy tuddee xilful fudur moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni màkka di fekk naa fa ca kër abdullahi ibnu jubaa ak ak benno ak lonkoo goo xam ni buñ ma ko bëggoon a jaayee jur yu xonq yi te muy ay gileem mbooloom gileem jëralu ma ko maanaam buñ ma bëggoon a jox mbooloom gileem ngir weccee ma ko lonkoo googee ma gisoon du ma ci ànd du ma ko d'accord léegi lonko gee mu ma fi gën a ndax dëgg gum gum jaar ci dëgg daal di wax ne lonko googee de buñ ma ci wooyo woowoon ci islam sax danaa nangu ndax dafa mel ni dafa dëppoo ak dini islam jim jim ji ko yàlla tere lañ mu di ko woote mooy ni biir màkk gii nañ fexe ba ku ñu fi tooñate ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk ñëpp nanu takkutoo jàppale la yow mi ñu tooñ ba ba ñuy fab sa tooñaa ngi delloo la ko yonente bi nii fekk naa fi lonko nga xam ne buñ ma ci wooyo woon ci islam sax danaa ci d'accord doxin wi mu daan dox jëkk nubuwa gi di ñëw yonente bi dafa doonoon ku rafet jikko wala boog ñu ni mooy ki gënoon a rafet jikko ci ay mbokk yonente bi moo leen ëppoon ak dëggal ku amoon ak dëggal yonente bi ku amoon kóolute la yonente bi ku sori woon ay ñaawteef la yonente bi ku sori woon jëkk yuy tëral nit ñi jikko yuy tëral nit ju ne rek eh, daf ko sori woon ba ay nitam tudde woon ko al amin ku ñu wóolu gi ngir li yàlla dajale ci moom ci ay jikko yu rafet moo tax ñu tudde ko al amin ku ñu wóolu gi yàlla wattu woon na yonante bi jëkk na boo gi di ñëw ci mboolem jikko yu saw yi daf ko bañ la woon lool jaamu xëram ak la ca aju benn jataay wala genn feet guñ ma sa feetal ay xëram mu tere ko amut mu sa tere benn ci alayhi wa yonent bi mi ngi nettali ak ngoneem di wax ni musuma ittewoo dara ci li ci li jaahil yi ittewoo musuma ci ittewoo dara lu ndare ñaar yoon te lu ci ne yàlla dama dox dafa dox sama diggante ak moom daal ni benn dama doon sàmm ak jur ci peggu màkka ba guddi jot ma wax ki ma àndaloon di sàmm ni ko ba ma mënoon a xoolal sama jur ma man dugg biir màkka euh, seetaani la sama moromi gone yi seetaan daal